xale yi nga xam ne léegi foog ñu teg fa baaraam ndax dañu dañu gis ne jamono ji dafa commencé bëri lool euh, buzz bi toujours dañ koy xëcc ci lu bon di ko xëcc ci loo xamante ne naka suba noonu la di def ay vidéo yoo xamante ne ay vidéo yu bon la euh, di ko di ko di ko dugal ci net bi yàqante gi defante lu ñaaw li nan nga gisee loolu baax euh, pourtant ñun artistes yu mag yi waxuñu leen dara ñun ñoom ñun artistes yu mag yi waxuñu leen dara population Sénégal yi ñooy kaas yooyu mais bu dee ñun artistes yu mag yi rek waxuñu leen dara ñun parce que dañu dañu xam ne ñoom dañu waroon euh, jouer comme dramatique comme ñun lañ doon jouer comme ñoom nañu jouer dramatique cinéma la ñu mën a jouer il faut ñu jouer cinéma ñoom cinéma la ñu xam moom la ñu mën kay. Mhm, nga xam ne ñu koy def di filmer seen ay taat di ko dugal ci ci ci ci bi te lépp lépp boo xoolee majeure partie bi ñu koy def ñi ay artistes lañu ñi ay feccikat lañu ñi nangam naa. loolu nag loolu ñoom dañu naan. buzz la leen di yokk dañ ko def ba pare nga dégg ko ne ah garaawul da leen di yokk buzz rek. ñoom loolu la ñuy def buzz. maanaam ñu lay tudd si kaso ba walla ñu lay tudd si lu bon wala ñu tudd si loolu la def buzz loolu du buzz loolu xas la tudd xas xasu bon mu ngi mel na nga nekk si nga nekk si famille ñu lay xas xasu bon ni la bokkuloo si famille ndax li ngay def nanga ma nga naam xas la loolu xas la. nañu bañ loolu ñoom ñoom artistes yu ndaw yi ñun bu doon sunu sago kenn du leen wax dara ndax sunuy doom lañu fi nu toll nii mag lañu dañu leen war a sax jiital dañu leen war a jiital ñuy joué mais xale yi léegi du ñu woo benn mag ni ko man de defaroon naa pièce dama bëggoon nga xoolal ma baxam xam du ñu ko def ñun du ñu nu laaj comme du ñu nu laaj nag mënuñu leen force nu wax leen nde bu bu doon dañu nuy laaj ñu père man de bindoon naa pièce sangam xoolal ma ko ba ko net nu xool bu nu si gisee loo lu ñaaw ñun la ah boo boo boo mënoon dindi lii dina baax wala ki xale bu jigéen bii li mu sol nii bu ko mënoon changé mu mu summi parce que so si colin yi rek la nag si colin ni te loolu day tax xale yi xale yu ndaw yi lay xool di xale bu jigéen jànk xale bu jigéen jànk si kër sa façon boobu lay jéem a kii lay lay jéem a apporté yëre yu mel noonu la bëgg di sol si si kër yaa ndeyam ak baayam bu boobaa nag mu sol yoo xam ne waru ko sol mais si voilà si biir loolu nag colin yooyu nag si biir loolu man parents yi laa laa laa laa sikk parce que xale bu jigéen bu mu mënti doon wala xale bu góor si kër nga génn yow waru mënuloo sol yë bu ñaaw bu bon bu mel noonu nga génn si kër gi sa yaay waxu la dara sa papa waxu la dara nga dem boo demee beneen nit du la bu la waxee dara nga ne ko sa yonne aussi juruloo ma jënduloo ma te looloo xew léegi juruloo ma jënduloo ma moo tax moo tax it ñun ñun artistes yu mag yi waxunu leen dara de population bi la nañu wax ni population bi ñoo leen di wax loolu mais ñun waxuñu leen dara ñun nag bu ñu nee xew yi nañu wax nañu dëgg xew na nu ndax lu tax na xew yi mooy euh, euh, promoteurs yi xanaa xëy na joxuñu nu financement pour nu liggéey te ku nu joxul financement du nu la liggéey dara waaw. amoon tey looy wax ki nga xamante ne mooy nguur euh, ak dund ndax ñoom la lu mel noonu daal def ay vidéo yu doy mu rëcc dugg si net bi tey boo amoon lenn loo leen jox conseil tey seen papa nga ndax yaa leen jiitu ci li ñuy def théâtre boo amoon conseil boo leen jox moo xam ne tey bëgg ko ñu doxalee ko à l'avenir lan lay doon. est-ce que ñoom ñoo ko def hmm? avant ma lay tontu est-ce que ñoom ñoo ko def wala nit ku leen bañ moo ko moo attention ñoom parce nga xam nga boo gisee ma ne la est-ce que ñoo ko def mm-hmm. booba dama doon laaj ba xam ñoo ko def wala déet dëgg la dëgg la yow xam nga ni dëgg ah mosoo maa fenn bu dee ñoo ko def waruñu ko woon def bu dee ñoo ko def waruñu ko woon def bu dee beneen jigéen a ko def mm-hmm. parce que li ma lay wax na nga ci bàyyi xel. mooy dama la wax nii nag xam nga dama la laaj sànq ñooñu def ko nag ñooñu ko dugal ñi ko dugal ñoo ko def xëy na moom dafa doon wax ak xale bu jigéen boo xam ne dafa ko bëggal boppam comme ni ma la ko mën a waxee léegi nag ñi nga kooku xale bu jigéen boobu mu mu doon waxal xëy na moo ko jox xaritam waaw jox ko xaritam xale bu jigéen boobu moo bon mais du duudu xale bu jigéen boobu moo bon moo bokk bon moo taawu bon waaw te dafa mel ne bokkul si jullit dafa xaw it sutura duudu kooku la ñu war a wax te kooku bu nit ñi xamoon dana xam ne uh, yàq deru nit baaxul te bu mu naagu nag parce que duudu dafa am ay famille de te xamul famille duudu nañu mel yàq deru nit baaxul képp ku ko ciy def yaakaar ne raw nga wala leneen bul bul bul naagu yàlla doy sot boo xawee sutura nit ki yàlla mën na xëy benn suur rek nga alko nañu bàyyi xale jigéen ñi nañu bàyyi loolu waaw nañu bàyyi loolu te li koy indi mooy xale bu jigéen day nopp xale bu góor beneen moroomam nopp kooku rek comme comme par exemple exemple laa la jox ki comme kii tey xale bu jigéen nopp ko keneen nopp ko ah mu gën a mu gën a mu gën a féete si kee rek kee daal di def eh, def bëgg koo daq daal di def loolu dugal ko ci ne bi ni moo ko def moo indi problème yii di am loolu lépp lu ko indi mooy problème mooy série yi série yi ndawaan yi gars yi di def rek di dugg si solo colaay yu bon ak yow nañu wàññi colaay yi wàññi toogaay yu bon yi ci ba noonu nag mm-hmm. te lépp lu ko indi mooy whatsapp whatsapp lu ñu dem ba di ko watat lu ñu dem ba di ko jiri whatsapp wat wat wat lan la wat whatsapp ku ñu jiri si si lu lu lu metti kay nga nga sab comme picc yuuxu mooy whatsapp